yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi bu baax a baax a baax a baax di leen dalal ci barab bu tedd bu màgg bii nga xam ne mooy grande mosquée bu Touba tey nag ñu àndoon nag sunu mbokk yi nga xamante ne ñoo yëngatu ci wàllum wér yaram ñu dalaloon fi xeeti pàcc yu wuute ci wàllu médecine waaye docteur Diouf nekk koo xam ne moom ku miin barab bi la sëñ Abdou Lahad ñuy leeral sànq rek seen i taxawaay ak waxtu wu nekk bu leen jumaa ji soxla ci événement yu mag yeeg même bu dul événement ndax kenn ku ne xam na ne barab bi dafa am personnel bu fiy xëy waxtu wu nekk léeg-léeg ñuy jànkonteeg loo xam ne faw ñi yëngatu ci wàllum wér yaram dañ ciy am wàll bu baax waaye docteur Diouf saa buñ ko soxlaa Euh, dafay taxaw suñu wet di ànd ak ñun liggéey bu baax sëñ Abdou Lahad mi ñu koy leeral bu baax kon docteur ñu ngi lay daral ci barab bu tedd bu màgg bi euh, bisimilah. waaw jërëjëf sama sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziar di sant yàlla bu baax a baax di ziare sëñ Muntaxa di ñaan mu yàgg fi te lool. Euh, di yëkkati kàddu yi ak kàddu yi cant jëmale ko ci daayira Muxaddamatul Xidma gis nañ barab bi ni mu demee. gis nañ ndoga ndogu yi maanaam gis nañ lim bi fi ñëw tam di fi ndogoo si ñu mu doon loo xamante ne ni luñ rafetlu la euh, ndax euh, am na ñoo xamante ne nii mën nañ war ba dog jot te duñ am luñ doge yéen li ngeen di def nii wax dëgg si yàlla ci social la euh, rafetlu nañ ko li ci des it ci wàllu bërëbu fajukaay bi mi ngi fi pour taxaw ñi ko yittewoo rek. comme niñ ko daan defe rek saa yuñ ko soxlaa bis yi nga xamante ne ni dajaloo bi day bari ci jumaa ji rawatina àjjuma def nañ benn planning boo xamante ne ni saa yu ne dina am benn équipe médicale boo xamante ne ni dina ñëw euh, ku fi teewoo toppatoo faj bi rek mu toppatoo la euh, li ci des it mooy yeneen événement yi am lu mel ni màggal euh, màggal yi am yëpp gu ci amit dinañ fexe ba ay fajkat ñëw fi eh, taxaw ñi nga xamante ne nii yittewoo nañ taxaw bi paj mi tam niñ ko bëggee foofu it nekkul ne barabu fajukaay la boo xam ne nii dañ fay tee nit di ko fa hospitaliser wala dara waaye fajam neggandiku la rek maanaam koo xamante ne nii nekk nga eh, ci état bu urgent maanaam lu jàmp rek loo xamante ne nii lu jàmp la bu jàmpee ñu toppatoo la bu laajee ñu warlaa laa yóbbu feneen ñu yóbbu la feneen bu laajul ñu war yóbbu feneen buñ la toppatoo ba pare it nga génn dem ñibbi. Ah, euh, docteur jërëjëf ci leeral yi am solo yi xam naa beneen laaj bi ñu lay laaj rek mooy euh, barab bi biñ fi taxawalee liggéey bi yan yan yan yan yan yan yan yokkute ngeen ci gis ak itam mm, ndax nemmeeku woon ngeen ne lii lu waroon am ci barab bi bu yàgg-yàgg la beneen bi ci dolliku mooy yéen ñi nga xam ne yéen a yëngatu ci wàllu woowu suñ daat mi ngi leeral seen taxawaay lan mooy seen rapport nag ak seen diggante ak daayira Moukhaddamatoul Khidma waaw euh, xam naa mbir mi barab bi mënuloon a ñàkk ci biir juma ji ndax mbooloo mu toll nii fu muy dajaloo rek war nañuy sóoraale euh, wàllum faj wala wàllum secourisme ndax nit euh, day dem waaye ndog-ndog wala feebar mën na koo dabe fu ne surtout mbooloo mu bari fu muy dajaloo rek. fajkat war na leen a jege e, loolu moo tax ma ne mënu fi woon a ñàkk te biñ ko fi defee it gis nañ ne njariñ laa ngi fi ndax e, léeg-léeg nga gis ku fi daanu wala ku dox ba ñëw tàngoor wi jàpp la ba mu jéggi dayoo ba mu bëgg laa lor nga yëg si ñu toppatoo la toppatoo gi nga xamante ni moo war ci yow. E, suñ digganteeg daayira Muxaddamatul Xidma nag collaboration bu rafet la ñuy def ñu ngi déggoo di wootante. di toog di waxtaan ci lépp loo xamante ne nii lu jëmare barab bi kanam la ak faj mi nga xam ne nii dañ ko fi def mu mucc ayib waaw. tubarkalla docteur Diouf xam naa ñu ngi lay sant bu baax xam naa laaj bi ñu lay nii mujjee laaj rek mooy ku wax sante wax social santé ak sociale dañoo dañoo dañoo dañoo duggante ban message nag ngay lancé ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci barab bi ak itam sànq dikkoon nga ci sax ak jëmmi ndog yi nu ngeen ko nu ngeen ko gisee. ndax euh, médecine ku ko wax rek wax social ndax barab yi ngeen nekk ñaari ñi fay ñëw dañuy loru lool te ku ne xam na ne social moom moo ci moom moo ci jiitu diggante ñaar yooyu bëggoon nañ nga dikkal ñu ci bu baax a baax. waaw comme ni nga ko waxee rek boo xoolee ministère sax bu ñu koy wax dañuy wax ministère de la santé et de l'action sociale kon santé ak sociale mënuñu leen a xaajale ñoo ànd benn lañ maanaam li ngeen ciy def nii ci ndogu yi benn la ci boo xamante ne nii bu am solo la ndax weeru koor yi moom comme ni ma ko waxee léegi rek du ñëpp la seen loxo jot seen ginnaaw mën ngaa woor ba ngoon jot amoo loo ndogoo nga ñëw fi jaar fi xeewlu euh, xeewlu bu mucc ayib kooku yéen ñi koy def yàlla rek moo am seen fay leneen li ci des it euh, faj mi fajam social la ndax faj bi euh, ñiñ fi faj amut kenn kuñ naa daggal ticket amut kenn kuñ naa jëndal garab li ñuy def lépp dañ koy def gratuitement kon yéen yéen a ngi yëngu ci social bu baax a baax docteur ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax nag di leen sant bu baax ndax mel na ni daayira bi bu manee taxawal euh, barab bu mel nii ci biir jumaa ji man koo def ba pare mën cee def social bu mel noonu suñ ko mënee yéen mën ngeen mën nañoo wax ne am ngeen ci pàcc bu rëy rëy rëy su weesoo seeni seeni seeni seeni taxawaay beneen bi ci loolu ko tam yéen yéen a ñu yéen a ñu ñeme loolu kon ñu ngi leen di sant bu baax ci turu daayira Muxaddamatul Xidma rawatina ci turu sëriñ Abdou Lahad bu sama maam Xasan mi nga xam ne moo jiite socialu daayira Muxaddamatul Xidma ñu ngi leen di ñaanal tam lépp lu ngeen ci toggoo ci coono ngeen daje ceeg ngërëmu suñu borom barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xamante ni mooy barab mooy borom barab bu tedd bi kon ñu ngi leen di jaajëfal di leen sant bu baax di am mbégte lool nag ànd ngeen àndoon ak ñun liggéey bi tey xëy na waxtu nekk yéen a koy ànd ak ñun waaye ñëw tey topp waxtaan wi gëstu visité barab bi yëpp ñëw ànd ak ñun ndogu am nañ ci mbégte bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa